الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وخير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم من سنت يالله بباخ دي سنت الله يالله مبولم أم الإسلامي بي ندح تاي كيب كو جيس جوتاي بي تاي اك تياتو بي اك كيب كو نيو في دينا أم بكتة بدنا ما صح بدنا ما نه ني نك تي تلفوني ولا نك تي تلي نيوم نيو ني غنا سيفري في نيو ني غنا خام اكتياليتي فيم تولو ndax kenn ku nekk sa xel ak sa xol mu ngi aju fii ngir lan ngir ndambi lislaam bi nga xam ne yàlla may nañu ko tey may na ko Sénégal laay njëkk waaye may na ko Saalum waaye may na ko Afrique waaye may na ko faydo bi waaye may na ko Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima bi nga xam ne lii rek moo nekkoon xayaatam lii nekk moo nekkoon dundam moo ne alawtul bihaara zaxiraat wa innani alawtul qura al na bal hal jibaala ñu ne ko ngir lan mu ne aruumu ridal baali li nusrati diinihi wa ubrizu lil jiilil jadidi mithaala mu ne romb naa montagne romb naa doj yi tukk naa ci avion yi tukk naa ci oto yi tukk naa ci saxaar si tukk naa ci bato yi ñu ne ko ngir lan mu ne ngir tasaare diine ji ngir tàllal lislaam bi waaye ngir wane tamit exemple pour ëllëg jiil yi nga xam ne dina ñëw sama gannaaw naka lañ war a mel naka lañ war a taxawee ajiyaal yooyu tey jii ku gis Cheikh Mouhamadou Ibrahima Niass na nga xam ne ne mu ngi taxaw taxawaay boobu noonu li bàyyi mébétoon yëpp mu ngi koy def dem na ba tuddee boppam xaadimul umma xaadimul umma ba tuddeewu ko boppam rek te toog waaye daf ko tuddee boppam fekk na mu ngi ko doon jëf démb kanaa tey la gën a fës ndax ku nekk xam na ne yàgg naa toog ci biir école arabe di ginni jaam yi ci tafsir quran bi nga xam ne doon na ci baayam doon na ci magam alhaji abdoulaye ba tey jii mu continuer ko bu ko neexoon ne ah nekk naa xalifa fi ne nii lu bëri waratuma naa wàcc yenn yi waaye ba léegi wàccewut boppam muy continuer def tafsir boobu loolu rek doy na ci mu nekk xaadimul umma di firi jaamu yàlla yi téere Mawlaana téere yàlla bi di leen xamal lan la yàlla wax naa naasix man suux li yàlla tere ak li yàlla digle ak aaya bi lan moo ko tara wàcc ak lan moo ko tax loolu rek nekkoon na xaadimul uma waaye yemu ci loolu daf koo jëf mu ngi ci Nigéria tey jii waroon na koo fekk Guinée comme na ma ko sëñ bi waxee léegi gannaaw ëllëg wala le 16 mu ko war a fekk Gambie te yaakaar naa àddina bi yëpp a ngi koy fuglu fi ne nii xam naa nag waa Europe samay gars yi samay soppee ñoo ko gën a yàkkamti te incha allah loolu dinañ ci egsi bon nag tey jii ñëw neen ngir ndokkeel ko ci mission bi nga xam ne remplir na ko ca Soudan nga xam ne Nations Unies jéegu nañ ci lu ne mënuñ ci dara ñaar fukki at wala ko ëpp man nekkoon naa Égypte xam naa la fay xew. xam naa lu xew ci Soudan ndax Soudan ak Égypte benn la naari do bañ nañ ba dañuy wax masalu Soudan mu ngi mel ni Gambie ak Sénégal benn la ñoo takkaloo benn réew la woon ah tubaab yi ñoo ñëw rek xaajale ko waaye ba tey ñoom nanguwun ba tey baat bi moo moo takkaloo masalu Soudan comme ni ñu waxee Sénégambia noonu ñu la ñu waxee masalu Soudan bon xam naa xam naa barab boobu xam naa lu fa ne xam naa xeex bu fa ne waaye ñoom si seen bopp déclaré nañ ne kenn ku dul bàyyi xamul kenn ku dul bàyyi li leen Cheikh Mouhamadul Mahi si seen seen yoon bii nii lu leen Cheikh Mouhamadul Mahi ñaan dañoo jàpp na bàyyi ma leen ko ñaan ba tax na nangul leen ko ko bàyyi neen seen ngàndaay yi teg neen ko jeexal leen yëf yi yàlla daf ma may jële jëlee nit ñi ci lëndëm ci raglu indi leen ci tefes gëm yàlla waxut sax waxut axbaab waxut samay doom waxut samay soppe waxut samay taalibe waaye xeeti yéenantu bi la wax xam nga bu ko neexoon yemale ko ci boppam waaye yemaloo ko ci boppam moo tax ma doon tukki fu ne comme ni ma ko waxee rek tukki na fu ne ngir tasaare lislaam bi ngir yesal nit ñi seen imaan ak seen ihsaan waaye ngir taal faydo bi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane di woon ne dina ñëw ba tax na tey ñu ngi sant yàlla ci mission boobu nga xam ne ne alhamdulilah président de la république bu moo ne mission bi mat na complet na moo tax mu jox ko vol spécial sargal ko ko ngir jàmm ji nga xam ne ne indi na ko fa ba loolu ñu ngi siy sant yàlla ba loolu nami Sénégal la moo tax Sénégal yëpp génn neen kenn desut boo génn ci aéroport bi ñu bëri may oo na ñu ngi bëgg a dugg si mënuñoo egg si ngir mbooloo mu bari ngir embouteillage bu bari te yaakaar naa ne noonu la ko waa noonu la ko waa Medina di xaaree noonu la ko waa Kaolack di xaaree noonu la ko waa Mbour di xaaree noonu la ko waa Fatick di xaaree mboolem mbooloo mi nga xam ne ne seen Cheikh Omar euh, ñu koy nuyu bu baax du koy ziara di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan ci diaspora bi samay soppe yu fa ne ak ak samay xarit yu fa nekk samay mbokk taalibe yu fa ne maa la ñuy nuyu di bokkoo yéen mbégte mi di bokkoo yéen kontaan mi di ñaan yàlla mbégte lii yàlla nañu ci yàlla fay yiw te incha allah dañ koy fay yàlla nañu si yàlla fay xéewal ak jàmm di jaay si ruuj sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli maa ngi feggoog sama xarit sama soppe nga xam ne bàyyiwul maa ko wol sama bopp na ko dañ doon def réunion Mawla réunion euh, njabootu baay gi ñu ne ma léegi bàyyi ëwal moom bàyyi nañ ko sa yow yaa koy ëwal sa bopp ngir kóllëre gi bàyyi ëwal tamit yemut ci moom kese waaye mboolem muqaddama mi muqaddam Cheikh Abdou Baram yi woo na leen na leen yéen ñëpp génn leen ñu nekk Dakar ñu nekk Kaffrine ñu nekk ci senegal yépp ne leen génn leen ngeen ñew tettu la khalifa bi loolu it demb mu ko fekk Kaolack mu ko fekk Kaffrine te barki demb la fi bàyyeekoo demb la ko ko wax rek fekk na mu ngi door ex egg waye dafa baye delu wat delluwaat dëppaat Dakar na damay and ak gungé wat ko ba Kaolack deug dëgg teli legi man ak euh, Papa Cheikh kérok ba muy dem tiwawan di di ganasi daf wax na nako ol Cheikh Abdou Barham pour mu ñew ci ngan Cheikh Abdou Baram ba ma ko waxee mun ne amoon naa programme yu bëri waaye dama koy bàyyi mu bàyyi programme am yëpp ñëw ànd ci ngan li ñu bàyyi ko Medina bokkoon nga ci délégation bi ñu dem ba Tivaouane bokkoon ci délégation bi waaye amul ci loolu sax carburant daanaka mu gën wàllu oto yi wala oto yëpp sax moo joxe woon carburant yi moom tamit noonu la ko defee bon dëgg dëgg ñu ngi koy sargal la woon démb mooy tey rek tànk yi nga xam ne ne moom la waajur amoon mu ngi koy jéem mu ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla àggal ko yàlla yàlla matal ko bi jaay sa